mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi bàyyi xel seen chaîne Touba Mbella TV télé bi àndandoo ak yéen saa su ne di leen jox li ngeen bëgg ñu fas waxtaan waxtaanee nag euh, li nga xamante ni mooy sport sport nag nekk loo xamante ni intéressé na lool euh, population sénégalaise rawatina li nga xamante ni mooy football ñu gis ni jamono yi toll nii Coupe d'Afrique bi jeex na fi mu nekk nii l'heure est au Euh, critiques yi bëri woon na lool équipe bi baaxul équipe bi amul volume de jeu équipe bi ni muy joué baaxul équipe bi kat dañ leen war a jàppale waat équipe bi dañuy mel ni bëgguñu lañuy def équipe bi daal wax nañ lu bëri ci équipe bi gis nañ suñu premier match dañu am 1-0 deuxième match ñu niil troisième match aussi la même chose ñu niil jël paie nag suñu poule mu nekkoon nag euh, parcours boo xamante ni bu metti la salaamaaleykum maaleykum salaam rek sa ay jour ñu leen dañoo Covid am ñu des fii Dakar ba ñu àggee it Bafoussam am ñoo xamante ni it fa lañ leen téye ku ci mel ni Gana Gueye Edouard Mendy ak ki nga xamante ne mooy Kalidou Koulibaly ñoom Bamba ñee nekkoon fii ci Dakar mu nekk nag situation yoo xamante ñu bëri gis ñu ko woon sax ci équipe nationale yaakaaruñu woon ne Sidi Dieng euh, Seyni Dieng moom mooy góolu ñu xamoon nañ ay Pape Abdou Cissé sax yaakaaruñu woon mu nekk ay partant ndax remplaçant lañ la defoon mais franchement ñu muyee la mayo wane ne ñoom ay vrai patriote lañ wane ne ay vrai sénégalais lañ mu metti woon lool yàlla di équatorial ñu gën a gis volume de jeu équipe bi di gën a yokku Guinée équatoriale ñu dajeeg Burkina Faso ñu gis it boobu aussi volume bi gën a yokku ñu dajeeg Égypte final ñu gis ni volume bi gën a yokku waaye on avait vraiment des problèmes à marquer des buts man tey jii suñu ma woon lan ngay yokk Aliou Cissé wala loo koy dolli dama naan ko Aliou Cissé fexeel nga gën a ñafe li nga xamante ni moom mooy bal arrêté yi ndax Sénégal dañuy xool équipe bu muy fubalal dañuy yéeg sa kaw sonal la lool dañuy bëri lool ay coup te coup yu jege ci camp adversaire yi la problème pour dugal ko ñu war nañ nag bën a xool jour yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu gën leen tàggat ci li nga xamante ni mooy teg dóor yooyu ko franc yooyu nga xamante bu buñ ko amee rek di ko war a mën a dugal ci biir euh, camp yi mu nekk nag un problème boo xamante ni gis ko ñaareel bi aussi mooy mu corner Sénégal mu ngi am ay corner ci match yi day bëri lool waaye on voit que toujours yi du dugg dañ am corner yoo bu bëri dañ koy raté mu nekk nag ñoo xamante ni euh, observateur yëpp gis nañ ko ci télé yi gis nañ ko loolu nag man tey jii bu ñu ne ma woon boo jëna woon ak Aliou loo koy dolli dama naan ko Aliou fexeel nga gën a ñafe ci koo xamante ni day nekk ci milieu bi war a mën a di animer di alimenter ñi ci kaw parce que loolu manqué nañ ko ndax boo xoolee Nampalys Mendy boo xoolee

tey jii am nga lii mérite la boo xamante ni am nga ko kon nag Aliou Cissé lii yow yaay le premier sénégalais bu fi mës indi coupe d' nekkoon jour tey yàlla def la entraîneur yow foo toll rek di wax amin jàppal suñu biir xol bëgg la bëgg nag question dañ lay critiquer mais dañ lay dolli dolli bi nag mooy bul xeeb benn dolli yëpp man de sama dolli li ma gis. am nañ jafe-jafe ci coup de pied arrêté am nañ jafe-jafe ci ay corner fexeel nga gën a ñafe loolu nga gën ko ñafe ak sa ay jour loolu daal laa lay doon mais à part ça suñu défense baax na suñu milieu dëgër na on encaisse peu de mais on marque peu de bu ñu dugalee it képp ku supporter Sénégal bu Sénégal jiitalee équipe ci puso ak weñ ngay toog parce que da ngay tiit da nga naan léegi nag ñu dab suñu kon nag Aliou Cissé yoon bi nga jàpp pour jëmale fa équipe nationale yàlla na ci yàlla dimbale jour yi yàlla na leen ci yàlla dimbale ñu gis nag ba ñu ñëwee Macky engouement bi population bi ñëpp génn topp leen ba palais presque 17 heures ba une heure matin ñëpp a ngi leen topp tuuri xam nañ ni réew mi kontaan loolu lañ ñu bëgg loo ngeen ñu bëgg boo xamante ni mënatuñu leen fay saajo maaneek ñi mu àndal ñoom Kalidou Koulibaly équipe bi yëpp cat ba cat ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ba ñu paree ñu jox leen cinquante million rek ñu commencé dégg coow c'est par le moment coow li même bu amee jéem leen ko teg ci suuf parce que xaalis lu mu dugg rek da koy yàq te nag dañoo jëm ci échéance bu am solo yaa jël coupe d'Afrique waaye demoo coupe du monde loolu defet la kon nag fexe leen ba yéen waa fédération ngeen bàyyi tamante dëmb bi seen biir man yëguma man dama bokkoon loolu nit ñi nekk ci biti ah nekk ci pays limitrophes yi sax di dégg loolu ça nous fait honte daf ñuy rusloo ndax Sénégal exemple la kon nag dama leen di ñaan yéen ñi nga xamante ni yéen a ŋànk sport bi ñoo ngi inauguré suñu stade bu bees bi mu nekk joyau bu rafet nañu moytu jaaru coow yooyu ndax loolu dafay déstabiliser ak group cinquante millions kenn ku ne ku ne di jaar sa gauche man jotuma man jot naa ñu nii joxuñu ne loolu wax dëgg yàlla daf ñuy déstabiliser kon nag fexe leen aussi ngeen moytu loolu douzième gaynde Alekaza dem nañ ñafe dat nañ naa ay xarit yu nekk deuxième gaynde xam naa leen mais ba ñu wàccee Dakar cent franc sax yëkkatiwuñ ko jox leen ko te ñoom Sénégal fu mu gañee ñoom nga daan gis si tribune yi ñiy wane seen bopp ñiy def yaramu neen bind seen yaram yi Sénégal kon nag ni ngeen yëkkatee cinquante millions jox ko yooyu même bu doon cent mille la sax ngeen woo kenn ku ne jox ko ko loolu rek ah li séeréer di wax jox ko njël jombee ak xoox da ci baax kon nag Sénégal nañu boole lépp équipe nationale staff bi si la bokk waaye jàpp leen ni douzième gaynde ak Allez Casa lañ bokk fàttaliku Brooklyn. il n'est pas trop tard Macky Sall il n'est pas trop tard Matarba il n'est pas trop tard Augustin Senghor jàppale len ñooñu te ngeen xamanteni ci si bok li nak moy taxaw seetlu bo xamanteni man Pape Ousmane Ba def naa ko si footballu Sénégal yàgg nañ top coupe bi dina amam du am Yalla def na mu ñëw fi en 2022 da fay sogo jot Wolof Njaay dafa am ben baat bu mu yëkkati di ko wax lu jot yomb yomb na waye Yalla na jig réew mi te gis nañu Sénégal instant bi gor gor rombu niko champion jigen bo dajé ret niko champion ndaxte nous sommes les champions et vive le Sénégal yàlla nañu yàlla aar làq réew mi fa yàq eggul kon nag lii moo doon seen taxaw seetlu tey ci bés bi Pape Ousmane Ba ci biir Touba Mbella TV Touba Mbella TV chaîne bi di def ngeen di gis maa ngi leen di dig daje beneen yoon asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuh